daral la woon weer yàlla nu génn waaye jamono ji marché la ñu ngi ci nawet marché bu Mbàkke salte buuc xeeñ waaye it ànd ak ñàkk kaarange gu doy waar melaw marché wii yóbbu jaaykat yi ci aw mer wu tar ñoom nag ñu ngi jàmbat di wax ne faaw rek maire bi ñëw dimbali leen ndaxte dañuy fay seeni koppar te gis nañu ne feebar bii nuy daw mën na am foofee lay jaar mën a dugg seen biir gën leen a gàllankoor. waaye gisatuma fu ma taxaw amatuma fu ma taxaw ba daan doole fii yee nii doon am ndox xasaw xun ñu ne ci wetam bu ñuy lekk ci wetam la lekkee bu ñuy naan ci wetam la ñuy naanee te amuñu fu ñu daw fii nu toog ku fi xool fi ñu toon nii taxaw fi sa doo ko bëgg waxuma laa nga di fi toog di fi lekk. ab kenn ñëwatu fi ñun moom ñoo nekk ci euh, côté néggandiku bi ñoon ñun ñoo ne ci néggandiku bi moom ñun moom fi mu toon nii defar nu yóbbu rek a ci def ndax dee nañ. ay ñu ngi nii sonn bu bëgg a dee biir ndox mi maa ngi nii tëmb ci ndox mi sax yooyu yëpp ne ci sama tànk yi luñ luñ maa ngi fu ma toog sonn bu bëgg a sama yaram waa ni nii xaso xunn su ma demee wokkutulaay fanaane di ko yendoo. nekk ay ndaw di liggéey fii lu ñu yóbbu kër ga yor suñu kër yor suñu dépasse suñu càmmi ñaa ngi ca kër ga goruñu yettuñu ñun jigéen ñi ñuy taqale suñu borom kër yi am am bi demeetul noonu ñu génn ci feebar bi sonn nañu ñu ngi ne ci koñ ba lañ dëkk ñun ñii ñu ngi ci biir ndox mi lekk HLM moom ñëpp xam na ni fii ñu nekk dégg la ñoo ngi fi am ay jafe-jafe suñu bagage moo ngi fi yàqu mieux vaut nag kon commune bi jël seen ay responsabilités fexe ñu fay jëlee yow mu ci marché bale parce que menace képp am na fi le président tribunal bërki démb yónnee na fi xamal ñu ne ñu buñ tabaski kuy tabaski na nga yóbbaale sa bagage say place say wala say cantine te ñun ñun fi suñu bopp te duñ fi jëlee suñu bopp waaw kon maire bi nag li ñu koy wax mooy mu jug taxaw ci ñun ci aw askanam fekk ñu fii ñu nekk régler suñu situation parce que waxoon nañu ne saa su tawee dina fi ñëw indi fi ay mesures euh, jël fi ay mesures première fois ba nag def na ko indi na fi ñetti sarse suuf indi fi benn sarse xeer mais amul dara loo xamante ni feeñ na ci marché bi bagage mi ngi yàqu chaque jour bu tawee kenn du dugg ci biir marché bi kenn du mën a jaay jigéen ñi dañuy xuus ni ñi seen bagage di yàqu man mii keroog sama bagage fi ma taxaw dafay yàqu waaw li moom kenn ku ne xam na ne dafa rafetul ak feebar fii réew mi toll ndox mi ñu toog fi nekk sonn nañ jigéen ñi sonn nañ góor ñi sonn nañ ngay xuus ci ndox mu mel ni di togg di ko lekk di jox sa njaboot ñu di ko lekk ndax loolu rafet na imagine ndox maa ngi boo pare nga génne image yi woon ko jaami yàlla yi nañu jàppale marché bi pare na lépp da am puus puus day yore yëpp ba fees war koo yóbbul nit pour mu jaay mu daanoog moom ci ndox mi nit dugg ba pare daanoog moom ci ndox mi dem toog ko jox ko sa njaboot nañu jàppale te yàlla tax gis nga ko nii daal ñoo ngi ni sonn lool ca njaal nga fu nu teg ñu ne teggi leen teggi leen teggi leen nuy comti comti rek fan koy waxe nawet bi ñëw tubaarkàlla gis nga mbedd yi ña xam ne danoo dandante woon tey danoo roofaloo kenn ku ci nekk naan tubaar tubaarkalla toppal yaa ngi may gaañ yaa ngi daane sama tubaarkalla sonn nan daal ndox mi jaaxal nañu ndox mi jaaxal nañu torop torop torop torop torop ndax ay joboot lañu tubaarkalla maasallaa waaye nag olof Njaay dafa wax ne nawet day tooy noor day wow lépp nag dañ koo def ak can ak xéwal yu baawaan barke sëñ Fall waaye nag ku nu ko sëkkal ñu jël ku nu sëkkal fii daal ñu jël barke sëñ Fallou jafe torop la ci noonu jafe na métti na loolu mom ku ne xam ne ko ndax ko bo de jobot di xey di lo yobbu ci kër ga ngabot sambo ga ah sa borom def li ah doyna war Abdou mbake Ndaw tukhal ñu gis nga fi mu ñu indi ci biir ndox mi ñuy ay jaboot ñoo tëdd ci suñu kër di xoss ci biir ndox mi di jaay gis nga sax yeek lepp ngi ni ñu bokk di jaay jaayandoog mom tawé nu ni liggéey ñen ñi ñibbi nañ ñi mëna tok tok toog ñi mënta tok ñibbi nañ mbir mi daal a ngi nii doy na waar ñoo ko gisandoo ñun daal ñu ngi ñaan yàlla mu gaaw pare foofu rek ba ñu dem wala mu defal ñu fii suuf boog ñu man fee toog mu sëkkal ñu ko ñu man fee toog liggéey. noonu daal son nanu tooy son nanu ton nan ta tay nanu son nanu ci marché bi lu nu am ñibbi rek moo nu ko gënal sunu xaalis bépp say na bi may dugg ci marché bi di liggéey si deux cent cinquante mille laa yor sey na ci marché bi li ma jor ci bor dafa mu ëpp na cent mille sama digga yàlla. te lepp ci marché bi la sey te man mosuma yoré bor ci marché bi dama soj fi mu ne damaa sama yëpp ay met dama soj wor na yalla dama soj fi ne monuma dara. tey sonu rek ndax fi da ñi ngi ne amuñ amuñu ñoo jaay géej gay ni kenn wala fi ni nii place ni yi nii ñëpp dem fi ni da nga fi ni fi kenn jaay do fi ndax fi ne ñoo jaay fi ni na ngi dimbale fi na ngi ngi ñibbi wa ngi seet nañu def ndax sonu nañ loy fi ni da nga fa liggéey dara waaw luñu moy dimbal maire luñu moy jappalé nañu ko jappalé ñu genn fi ndax mi ngi ni fi ni ya ko gis kenn jaayut ñepp bañ sépp dem ñepp ak ci mbedd ma di li ji jaay té ñun ñun wax yalla dañu dañoo don. maa dëkk ci robinet bi marché bi gis nga ni barki demb ndox ma daa solo ba ci sama biir kër gi sama biir néeg yi sama waa kër yëpp da nga ci ba ñu nga né wop fièvre bi lañuy wax kon kay fièvre bi ñu ci biir fièvre bi fièvre bi ñi téré ñu ngi ci biir fièvre ñoo ñu indil fièvre bi kon téré tuñu fièvre marché bi ñu mel ya ko gisal sa bop ñun lek naan sunu doomi yi mënatuñoo balaat lépp a ngi fi sax yeeg lépp a ngi buuj te ñu ne léegi ne choléra bi xam nga choléra xam nga mooy lii feebar bi kay mooy li ñoo ñu indil feebar bi waaw ndax ñun fi ne mënatuñoo noyyi ci biir ne damay jaay ndox su ma jógee fii maa nga ci biir du ma génn samay waakee duñu génn ma ngi ñu dugal ci biir li yaa ko gisal sa bopp njàqarik tiis ñeel leen ñoom jaaykat yi ñuy sakku ci maire bi mu gaaw leen fa jëlee delloo leen ci marché ba nekkoon ci ay jamono. ñun koy ñu koy ñaan rek mu gaaw lijjantil ñu fee ñu gaaw dem fa wala mu lijjanti defaral ñu fii sottil ñu ci suuf ñu man fee toog boog jaay ba keroog muy pare la muy def waaw. ñun daal ndimbal daal la ñuy wut nañ ñu dimbali foofu daal lañu ñu mën a jëmale sunu gu yuuxu wooy nañu dimbali waaw. Abdou Mbacke Ndaw dimbali nu préfet ñu ngi lay interpellé dimbali ñu ngir yàlla fi moom doyal nañ fi sëkk sëkk sëkk sëkk doyal nañ fi sëkk ndax sonn nañ te ay gor lañ mënuñoo xëy tëdd danoo yoru njaboot di leen dundal. kon nag ñun li ñu bëgg mooy entrepreneur bi li mu waxoon ci trois mois yi mu waxoon ne chantier bi du ko passé affaire bi mi ngi koy romb fii ñu nekk nag du marché. bërëbu dallukaay la lawan rek ñu diggoon ñu ne na ngeen fi def 3 mois ba 4 mois ba 5 mois affaire bi mi li koy wax maire commune bi Abdou Mbacké Ndaw mu ñëw jëlañu fii delloowaat ñu suñu place parce que bi fi mu ne mi ngi bëgg a métti ñun Abdou Mbacké Ndaw nañu jàppale suñu marché bi mu recensé ko jox ko jaam yàlla ñu liggéey nañ jàppale si yàlla tax nit ñi sonn nañ góor ñi sonn nañ ñi nañ Baye yaakaar juddu ndaxte mairie bu Mbàkke ñu ngi ñuy xamal ne jamono ji liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci marché bu njëkk ba mu ngi dox yi jéego te jombul fi rek ci kanam tuuti nu ubbiwaat ko ñoom ñëpp nu delluwaat ci boobi marché.